avènement du président Macky au Sénégal mhm. daa mel ni président bi moom dafa mission bu moo dox boo xam ni mhm. ñeneen ñee tax tax tax mu jóg ñu àddu wax ci cérémonie génnuk ñaareeluk euh, promotion bu entrepreneur yi nga xam ne ñoom la ñu duppee entrepreneur euh, couveuse d'entreprise euh, jëm ci wàlluk promotion emploi jaaree ko itam ci micro entreprise di programme bi ñu boot ci fonds de développement et de solidarité municipale lu toll ci juróom fukk ci ay ndaw tàggat lañu leen ba jot seenug lijaasa reenuk euh, promotion bi ni nag euh, Léna Tall Faye la moom nag euh, di ab leader ràññee ko lool ci lu jëm ci secteur assainissement dañuy teewlu Adjaratou Aïcha Gningue ma fa teewoon na ñu tànn ko ndax jaar-jaaram ci wàllu entrepreneuriat marinu ñaareelu promotion bi nekk na yaayu royukaay les ah, xayma yi di wane ne ci Afrique téeméeri jigéen ñuy jël ñaar fukki juróom-ñaar ay entrepreneur lañu ba tax na rek kenn du dem bàyyi leen gannaaw de l'écosystème entrepreneurial mondial. ngir ñu mën a demal seen bopp ñii jot nañu seeni lijaasa gannaaw bañ leen tàggatee. ki talale loxoom bi ne la am kay ma jàppale la nga taxaw mu ne ah bu dee gor nga war nga yëkkati bi ci des ne ko jaajëfal naa la. koo xam ne yàlla may na la wér war nga mën a liggéey jëriñ sa bopp jëriñ sa njaboot jëriñ sa réew kon man dama leen di félicité di leen encourager. ngir ñu àggale gunge bi am na ku ci nekk chèque buñ la jàppale cérémonie bile mu ngi jeexee ci mélodie.

ay agent de police dañu ci euh, teelu euh, ki nga xam ne euh, moo di rek directeur par intérim bu direction bu formation de la police du commissaire Pathé Gaye ba tax na bu fekkante ni ñoom xam nañu ko dinañu gën a bàyyi seen xel ci ay valeur yoo xam ni su ñu ñu jiitu ñoom ñoo ko fi teg lu mel ni jom lu mel ni fit lu mel ni fulla lu mel ni fayda loolu lépp drapeau bi daf ko génne ci symbole ba tax na tey jii nii loolu moo waraloon ñu woo tey élève bi ci carré bu mag a mag bi pour leen euh, drapeau boobu mu nekk loo xam ne nag dafa am solo euh, attribut bu fondamental la tey jii nii élèves yi comprendre nañ ni tey dugg nañ néeg bi nga xam ni moo gën a mag